asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki Touba ca kanam nooru daare ni ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen jaare e, di ci jiital sëñ Abo Bousso mi nga xamante ne bi moo jiite relation extérieure di siyaar nag suñu déwrén sëñ Khadim Thian le coordinateur général ak sëñ Mbaye Tène chargé de communication ak conseil spécial relation extérieure conseil spécial euh, le coordinateur général sëñ Khadim Thian man nag maa ngi tudd Saliou Ngom euh, nekk secrétaire général daayira bii di ma di naan encore nekkit secrétaire généralu Touba ca kanam nooru daare ni fii ci Gambie euh, di liggéey boo xamante ne bi liggéey bu am solo la bi biñ ci tàbbee ba léegi depuis 2017 ba léegi 2017 lañ ci njëkk a tàbbi ñun di ci liggéey waaye boobu it pas-pas moo ñu ci dugalan waaye depuis mu ñëwee nag euh, sëñ Xaadim jiite ko dëkk bi ci dëkk bi gën naa yaatu di dox doxin woo xamante ne doxin mu ci ayib Euh, ñu ànd koog suñ jëwri ñi nga xamante ne bi mooy sëñ Mbaye ak ñi nga xamante ne bi mooy mbokki julli mbokki taalibe yi tey nag li waral bis bi mooy daayira Mafaatihul Jinaan mooy def son sixième édition euh, di cant sant sëñ Touba euh, di bis boo xamante ne dañ ko yaatal ànd ko ak tubaa ca kanam mu ñëw accompagner ñu di nekk bis boo xamante ne bis bu mbégte la mbégte lañ ci am wax dëgg yàlla sant nañ ci yàlla baax a baax Touba ca kanam ñëw defal ñu it lu rëy mastification boo xamante ne yaakaar nañ ne mbokk yi ci àdduna bi yëpp dañ ci bàyyi xel muy loo xamante ni Touba ca kanam ba mu ñëwee ci dëkk ba léegi gis nañ ne macha allah car macha allah mi ngi dox ndax liggéey la boo xamante ne bii comme ni ko ñëpp di waxee laaj loo mën la ñu def ko foo xam ne xam nañ ko te it ñi dem Touba ñëpp xam nañ ne Touba ca kanam mbooloo moo xam ne mucc ayib la ndax liggéey bi wax dëgg yàlla car macha allah fi ñu ko teg euh, kawe na ndax objectif bi mooy atteindre deux millions de talibés malgré mënaguñ ko am mais soo xoolee seen jëf jëf joo xamante ne bii kawe nañ jort koo xamante ne bii mas ngaa dajale mbooloo tey laajab xaalis muy loo xamante ne bi am na solo ñu ciy sañ nag mbokki jullit yi mbokki taalibe fi ñu mën di nekk ci àdduna bi rawatina diaspora bi mais rawatina fii ci Gambie nga xamante ne bi ñun fi la ñu ah, nga xamante ne bi liggéey la boo xamante ne bi yomb na ndax 1000 francs la ñuy laaj par weer ginnaaw boo adhéré membre ba pare 1000 laaj chaque mois loo xamante ne bi wax dëgg yàlla yomb na mbokki taalibe yëpp ku ko jéem nga ko mën waaw ñu ciy soññ nag ñëpp di gërëm nag suñu jëwriñ bu baax Serigne Papa Demba Diop représentant du bu ñu nekkee ci liggéey bi di ci yëngu mom moo ñu ci yaatal ci dugal ndax moo ñu ci dugal so na ci bu baax légui ni rek mi ngi ma ci soñaat kon ñu ngi koy sant bu baax diko, ñaanal yeen bi ko sëriñ bi yeen mu OF tol mu agalé ko fu mu ko bëgg agalé ci barke sëñ Touba ñi ngi nuyu bu baax di siyaar tay jéggalu ci kàddu lu ci dëng rek ñoo xamné ndongalé la lu ci jub ñoo xamné sëriñ bi la alaykum wa rahmatullah alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yeen daraji, daara ji Touba ci kanam nuuru daare ni seen mbokkum talibé mohamadou Diallo mo len di ziar di len jox seen wàccuwaay yéen ñep gi jël nuyo ak ziar tek ko ci suñu murid jëwriñ señ khadim tian mu ñu ko fep fo xamanteni rek mouride jaar di nuyu ñep di ziar ñep di am contente bu baax nak ci bisu tay bi ndax mu melni suñu mbokk euh, daayira ma fatou Jinaan taxaw lu melni ñun suñu waref nak moy ñew Touba ci kanam ndax Touba ci kanam mom lepp li ko tax jóg mooy yóbbu Touba ci kanam te war na bépp mbopp taalibe bu ne nga am ci taxawaay bu mat sëkk yàlla dogal nag ñun ñuy collecteur ma féete diwaanu Bakaaw comme ni ko sëñ Saliou Ngom waxee rek suñu taxawaay fii mooy jàpp rek ngir yóbbu mbir mi ci kanam kon dañ ciy soññ mbokku taalibe yëpp képp koo xamante ni yàlla dogal na ngay ab murit te nekk ci réew mi mbaa nga nekk bitim réew sab wareef mooy nga jël sab kàttan ak sa mën-mën yëpp def ci Touba ci kanam ngir mu dem ci kanam ndax ñun amuñu lu dul Touba te amuñu lu dul murit gi ci la ñuy xëy ci la ñuy gont ndax mooy lépp kon dañ ciy woo ñëpp incha allahu rabbi yàlla dogal ñu jàpp ci jëfee ko ni mu waree ñu dem ci kanam incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. seen groupe Nooru Daara ni bu Touba sa kanam seen mbokkum taalibe xaadim ba fii si Gambia nekk collecteur moo leen di siyaara bu baax tey commencé siyaara bi nuyoo bi rek si suñu jëwrin ñun ñëpp di sëriñ bu Mbàkke moom sëriñ Fallu ak sëriñ Abo ak euh, sëriñ xaadim Thiam mm, suñu jëwriñ ak euh, sëriñ Mbayteen ak sëriñ Saali Ngom nga xam ñooy suñu jëwriñ si liggéey bi ñoo ngi leen di siyaara bu baax a baax a baax tey nag suñu teewaay fii si daayiratu sopp mm, daayiratu Mafatul Jinaan xam ne dañoo woote tey bis bi ñun waa Touba sa kanam ñu ñëw ànd kook ñoom si liggéey bi ngir fesal liggéey Serigne Touba bi kon nag ñoo ngi siy soññi mbokki taalibe yëpp képp koo xam ne bii ne rek yaa ngi si dëkk bi ñoo ngi lay soññi bu baax a baax man Khadim Ba mi wax ak yéen nag collecteur laa nekk Latrikunda képp koo xam ne bii ne rek yaa ngi nekk Latrikunda ak li ko wër rek waxtu woo ma jokkoo rek bu soobee suñ borom incha allah rabbi ah foo mën di nekk rek danañ la fa fekk ànd ak yow. dana dafa fekk ànd ak yow si liggéey bi kon nag ñoo ngi siyaare ñëpp tey ñaanal ñëpp jàmm rek te xam ne liggéeyu sëriñ bi moom bërigo la si mbartal rek ku teg sa loxo mu dem ku tegul sa loxo mu dem kon nag ñoo ngi leen si soññi yéen taalibe yëpp képp bépp taalibe boo xam ne bii ne rek yaa ngi nekk si diaspora bi rek ñoo ngi leen ñoo ngi soññi suñ bopp di leen soññ te xam ne amuñ lu dut sëriñ Touba te xam ne liggéey bi moom kenn ku nek rek dang nga wara japp a sa bop soññ ka nga dendal tay ñaan rek yalla nañ ci tassé tawfiq sëriñ bi tay jaajeufal bu baax suñu jëwriñ sëriñ pam Demba Diop ak sëriñ Khadim Thian ñong koy ñaanal bu baax a baax nu gudd waan ak wër ndax wax deug yalla japp na ci liggéey bu baax ak sëriñ bay tanit ñong koy jaajeufal bu baax baax diko ko wa tuwa sa kanam yëpp taxawaayam fii si Gambia mom ñepp ko lo wax yalla ma sha allah di ñaan rek képp ku ci def sa dërëm wala nga am yéen yalla na bi fay ñepp ngeen gi fay si barke sëriñ Touba tay ñaan rek yàlla nañu yàlla doole dimbale si barke sëriñ Touba ba fépp fu ñu bëgg liggéey ba àgg fa rek mu àgg fa si barke si Amadou Khadim jërë ngeen jëf. barke Serigne Touba barke maam Cheikh Rahma Fall mbokki taalibe yi nooru daara yi ni bu Gàmbi seen mbokkum taalibe Cheikh Touba Baye Fall bi moo leen di ziar di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal waa Touba ci kanam yëpp di leen wax ni ñoo fi teewal tey Touba Sagnang ci ndigalul sëriñ Khadim Thian sëriñ Mbaye sunu jëwriñ sëñ Saliou Ngom. di rafetlu Touba ci kanam ni muy doxee lool waaye di ci ke talu taalibe yëpp ak mbokki julli di yëpp di leen wax ni comme ni ko sëñ Mountakha Touba ci kanam moom bërigo ci mbartal la ku dem mu dem ku demul mu dem kon ñoo ñaan borom ni ci barke Serigne Touba Cheikhul Khadim ban bokk ci ñu koy demale ci kanam so ñi ngi soññi mbokki taalibe yëpp nag di leen wax ni Touba ci kanam dal mi ngi noonu yoon la woo xam ni ku ci sun borom ni nga daje sëñ Touba Seexul Xadim yàlla na ko yàlla def barke sëriñ Touba Seexul Xadim wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di ziyaare di leen baalu àq di leen baalu àq di leen ziyaare bu baax ci weeru koor wi weer wu màgg wi di ndokkeel mbokki taalibe yépp di wax ci teewaayu tuubaa ca kanam fii ci Gambia di siyaare ñëpp di wax ne soññ mbokki mboolem mbokki taalibe yi ñu bokkal liggéey bi yépp njëriñu tuubaa ci kanam am na solo lool di soññ ñëpp ngir ñu jàpp si ndax weer wu ne 1000 francs moom daanaka doonut loo xam ne mun waroon naa mun a sooxe ci àdduna bi te buñ si jàppee liggéeyal sëriñ bi bi mu fi nekkee gisuñu ko kon buñ toogee bay def loo xam ne lépp ci liggéey ngir Touba ca kanam la ku nekk war nga ci mun a gis sa bopp di si soññe góor ak jigéen mag ak ndaw ku nekk bu weer wi jotee 1000 francs bariwut nga sànni ko ci dina am solo lool ndax gis naa seen liggéey am na solo dinaa seetaan fii ay oto yoo xam ne Touba ca kanam a ko génne ci Touba te dëkkub sëriñ boobu fon naa ne bëgg na fa lu bëree bari loo xam ne ni bisu ñëpp jàppee rek dinañ egg ba gis si lu kawel si njortu di sant Touba sa kanam di leen ñaanal suñu borom gën a dëgëral taxawaay yi yëpp di soññe ñëpp pour ñu gën a góorlu ci liggéey bi ndax am na solo lool Touba war naa toog ba mel ni Makka ak Madina ci liggéey bi te buñ jàppee ci Touba si kanam lépp dina ko mel incha allahu rabbi di leen sant nag ci seen teewaay fii ci Gambia ci cantu Mafatihul Jinaan mu am solo lool di dayra boo xam ne sëñ Saliou Mbacke moo ko sos tuddee ko ko muy Mafatihul jinan ñu nekk si and ak ñom ci liggey bi bu si tuba ca kanam teewé ñu ngi ci sante yalla bu baaxa ba di soññ mbolam julit yi ngir ñu japp ci liggey bi alaykum wa rahmatullahi taala wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa tuba ca kanam Nuuru ni bu Gambi, ñi ngi nuy ñëpp di siyaar ñëpp di baalu àq ñëpp tey baalu àq ñëpp te di am mbégte ak contante ci Touba ci kanam ni mi doxé fi ci di ñaanal sëñ Mbaye Kane ak euh, sëñ Xaadim Thian coordinateur wax dëgg yàlla bu baax a baax ndax seen liggéey ci Touba ci kanam rafet na lool xanaa di wax rek ne euh, nañ ci gën góor góorgóorlu bu baax daal ndax euh, comme Touba ci kanam 2 millions de murid la soxla te defe naa ba léegi ma tagut te jàpp naa ne murid yi romb nañ 2 million kon nag na kenn ku nekk jaayante ak Serigne Touba weer wu dee nga joxe 1000 francs dagg sa carte membre chaque année. loolu tamit su boobaa dina am solo lool ñu defar Touba ba mel na Makka ak Madina waaw ndax wax dëgg yàlla Touba kenn mënu koo defar ku dul murit sëriñ Touba yi rek ñoo ko war a defar kon nag na bépp murit taxaw laxasaayu we at mu dee nga dagg carte de membre 5000 weer wu dee tamit nga dagg 1000 francs buñ ko defee defe naa ne daañ defar dëkkub sëñ Touba ba mu mel ne Makka ak Madina ci barke Serigne Touba di ñaanal jëwriñi Touba ci kanam yëpp nag ñu yàgg fi lool te ànd akuk wér ci ku mel ne Serigne mbake ak sëñ Cheikh Tako ak mboolem murid yëpp ñu ngi lay siyaar ñëpp di wax ne Touba ci kanam moom sëñ Mountakha da cee soññee sooñe boo nga xam ne si war na bépp murid maanaam bu koy déglu rek war nga cee ma a laxasaayu bu baax ndax sëñ Mountakha wane na yoon wi te Touba ci kanam dafay def social euh, dafay def social. dafay def euh, wàllum ndox mi tamit daf ci yëngu bu baax ay defar na ay hôpital kon nag defe naa ne ku ne bu ma amoon lii dinaa def lii dinaa def euh, lu ne ngir ngir kon nag defe naa ne weeru dee mille francs murit bu nekk war na ko man waaw ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp te di woo mboolem murit yi nga xam ne si ñoo nekk ci Gambie yëpp di wax ne Gambie moom kenn wóoru leen cee jiitu ci Afrique nañ jaayanteeg Serigne Touba ba Afrique toujours fuñ ñuké ñu raw fa ci bark seigne Touba ñi ngi siar di soññee ni mako waxé won légui ci suñu kurel bu am solo bi nga xamné moy Touba ci kanam bokk yi Touba ci kanam mom xawma liggéey ku lir Touba ci kanam bokku ci bi mu ay magay bi gaaw allah tarafet bo tuba, Touba ñu won la ay pajukaay yo xamné Touba ci kanam ko boo demee Touba ñu won la ay wata yoo xam ne ñoo ko joxe ñi bale Touba ak yu ñuy jox sapeur pompier ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen waaw ñu ne murit bi nag moom ñaari téeméer képp lay joxe weer wi ñaari téeméer waaw doo ci am nag bis boo bàyyi connexion bi nag te joxe cotisation ñaari téeméer bariwul da ngay sasoo loolu gis nga boo nekkee ci jafe-jafe lii ma lay wax nanu yàlla dimbaliwaat ban fekkewaat ko déwén la ngay essayé ne man li Gana wax laay xool weer wu jot danaa dagg Touba ca kanam problème sàngam laa am bu déwénee ñu xool ba xam da ngay ne def nga dara Touba ca kanam mooy sëñ bi ca kanam mooy murit ca kanam mooy jiitu ñëpp te kenn du la jot kon nag nañ ci góorgóorlu bu baax